الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين noo ngi sant sunu boroom noo ngi koy bàkk di ko kañ ci turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi ñu ngi julli salmal sunu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dot ci waa nga xéwal ci kaw yonente boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain ñu ngi sant sunu borom bi mu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci ron keppaaru xam-xam ci téere bu màgg bi di téere sunu borom bi tafsirul quran al azim comme ni ñu koy baantoo ci jamono bu ne xam ngeen ne alquran ci boppam dafay nàndal dina tëfal xolu ku gëm yàlla maanaam xol bu dee borom ku gëm yàlla la nàmpataleewuñ ko lu gën tudd yàlla subhanahu wa taala te mboolem tudd yàlla yi alquran moo ci gën a màgg moo tax wàccuwaay bi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala war na ko am ci xolu ku gëm yàlla su fekkee wàccuwaay boobu wér na ni ma nga ca xol bi de dafay bànneexu ci jaamu yàlla yépp moo xam jàngal alxuraan la moo xam julli la gépp jaamu yàlla goo xam nit ki mi ngi koy def xol bi da cay bànneex waaye da cay yëg mbégte loola mooy tax ñu gëm yàlla tigi topp suñu borom da leen di yomb parce que dañ koy bànneex yàlla na borom bi boole te ñooñu ci tawfiq yi suñu borom ñu ngi nekkoon ci suratul ankabut ci laaye ñaar fukkeel ak ñett borom bi subhanahu wa taala def ñu war a tàmbali tey ci laaye ñaar fukkeel ak ñeent sunu borom mu ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون kon sunu borom subhanahu wa taala mu woy ak ñun di ñu nettali ci histoire yi yonent yàlla yi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon te ñooy gaa yu baax ya sunu borom subhanahu wa taala mu nettali ñu aslëf ci yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam muy abul anbiya di al imaamu al awwal al muwahhid wala imaamu al muwahhidin al awwal Ibrahima alayhi salaam ak dundam wala ay njàngaleem la ca gën a fës gën ca am solo mooy xol bu tooy xepp ak bëgg yàlla waaye xol bu dëgër këcc ci ngëm yàlla subhanahu wa taala te ñaar yëpp benn bu ci nekk damaan moom rek nag la ko gëm yàlla sunu borom ni Ibrahim bi mu jaaree ak aw xeetam fam jaaram ak ñoom te waxoon naa leen feeñoon na as lëf ci suurtu Maryam feeñaat as lëf ci suurtul anbiya feeñaat as lëf ci suurtu suara kon qissa qissab Ibrahima mi ngi baamtoo ko baamtuwaat comme ni qissab Moussa di baamtoo ko baamtuwaat moo tax léeg-léeg yenn yi duñ ci faral di yàgg suñu borom ni fa maa kaana nekkul jawaaba qawmihi tontu aw nitam bi leen Ibrahima waaree delloo leen ci yàlla te bokk na ci li mu leen doon waar mooy lii ngeen di jaamu du dégg du gis mënta andi njariñ mënta dàq lor ah te it nag musiba rek la leen di jural ëllëg àllaaxira ba jaaree foofu ba toj seen xërëm ya ak ba muy wax naan jant bi lay jaamu toog ba mu yàgg mu ni weeru lay jaamu toog ba mu yàgg mu ni moom daal bu ko yàlla gidduut day alku daal di jëmale kanamam ci ka nga xamante ni mooy sunu borom muy awal awal mooy al axir discours yu rëy yu màgg yooyu nga xam ne Ibrahima def na ko ak ñoom sunu borom ni fa maa kaana nekkut jawaaba qawmihi tontu aw nitam illa an qaalu lu dul dañ ko wax ni ko wala ñoom dañoo wax ni uqtuluhu nañ ko rey aw xarriquuhu wala ñu daal di koy lakk ci sawara lii nag moo ma sa nekk doxalinu nooni lislaam yi mooy ñoom bu fekkee dañoo jub jéem ak yow ci technique démo ñu jéem ak yow ci pexe démo su boobaa dañ lay jéem a menacé moo xam menace de mort la moo xam dañ lay tëj menace de mort la comme Ibrahim dañ lay tëj comme Youssouf dañ lay tuumaal comme Moussa dañ la ila axiri loolu nag maanaam képp koo xam ne ab daawakat la waru koo tiit waru koo ragal déedéet maanaam képp fas yéene nekk ab daaya menace yi nga xam ne mooy bàyyi koo ci noonu lislaam moom du ko tiit moo xam menace u rey la moo xam dañ lay dëj moo xam téer yooyu ñàkk solo la ni ci loon naa Cheikh Islam Ibn Taymiya nga xam ne buur moom dajale woon dajoloon nga saay dam saay saay lool da ko waxoon ni ko dama lay tëj mu ne ko boo ma tëjee defal ma la ma doon bëgg ndax ma am jot pour mën a taalif waaye am jot pour daawaale te kasama dama lay génn dëkk bi mu ne ko nga gën a yaatal daawa ndax boo ko defee fu ma dem dama fay daawa dama lay rey mu ne ko loolu laa doon wër nag mu far shahid benn yoon mu jeex xam nga kooku wax dëgg yàlla ku nekk moom da ngay jaaxle parce que koo xam ni fexe moo seet ba jàpp ni bii laa koy def ndeke boobu moo ko gën a arrangé moom te loolu mooy wax lu dëggu la ndax ku xam cheikh al islam xam ko am na benn borom xam-xam bu taalif benn téere tuddee ko cheikhul islam ibn taymiya daawaatuhu wa jihaaduhu wax ci wax yu am solo yu wane ni kat jàmbaar la woon joo xamante ni maanaam misaal la ci xeet kon sunu borom ni bi gaa yi ne uqtuluhu nañ ko rey aw xarriquuhu wala ñu daal di koy lakk maanaam ñu daal di koy taal fa anjaahu llahu sunu borom daal di koy musal min an naari ci sawara loolu ni mu demee woon mooy gaa yi dañoo wax ni léegi nañu gas benn kàmb kàmb googu defe naa gaa yi ci wolof ñu ngi koy tuddee ngëri ponkalum ngëri la ñu gas pax mu rëy rëy moo xam ni pax yu mag yi quatre pans yi di gas ci tali bi yu ko gën a xóot nga xam ni am ngëri lañ koy tuddee di taxan di ca sotti di taxan di ca sotti di taxan di ca sotti ay ëkk nga ca ay garaba nga ca ay bant nga ca def ca ci ay bant loo xam ni ahlu siyar nee na xameesul tàkk-tàkk wala taal bu ci àddina bu mës a rëyee ak béréx béréx la mel ni taal boobu ñaareel moom mooy dem nañ ba picc muy naaw ca kaw ay kilomètres la koy tiim waaye chaleur bi yéeg asamaan si day ñoral picc mi picc mi daanu ci suuf xam ngeen loolu rëy la ndax ngaari ma moom ñoom dañuy ñëw rek maanaam da ngay dañoo wutal benn grillage bu ko wër nga xam ne kenn du ko jege ndax wér na leen ko ko jege dee su ko demee da ngay dikk ba jub rek jël saw say sànni ca biir kii ni man de am naa ñaari garab yu daanu ca tool ba ñu ni ko jël leen indi ñu sànni ca biir jëlul sax xaar parce que nu mu gën a tàngee lañ gën a bëgg xoolal kéem taal suñu borom bi nga xam ne taal bu gën a rëy taal boobu amul xamuñu ko ci kaw suuf gars yi di okkas ay weeri weeri weer yoo xam ne ku xëy lii sa métti mooy naa jaamu ji yàlla ca fax ndax ñoom loolu ñu doon def xurbaan lañ ko doon tuddee xurbaan mooy dañoo bëgg a gërëmloo xërëm yi merloo Ibrahima ak yàllaam ji su ko defee nañ jaamu yàlla ci sànni ay pax ay say mat ci ngaar yi ñu koy def di ko def di ko def ba ngaar yi fees ak mat gis nga bi mu feesee ak mat dañ koo taal gis nga dëgguñ dugal ci Ibrahima taaluñ leen dugal ko ci de déedéet dañ koo taal ay fan pour sawara ci gën a tàkk xam nga lu muy gën a tàkk rek day gën di di di gën a nu mu di yaañu gis nga ñoom ci seen jëmi bopp tàkk-tàkk bi dem na ba yegg pour ñu dugal Ibrahima ci biir faxe problème la parce que mënuñoo yegg ba ci jege fax ah léegi loolu ñuy tuddee man janiir wala lu ko jege nga xam ni ak max lay doon ko foog laat feer ah nga xam ni saaru njoowaan lañ koy def boo xam ne buñ la guuta mbaayee ba nga xiir rek buñ la sànnee mën naa mat jege kilomètre gars yi dem ba sori taal ba mu wóor leen mucc nañ ci ñu def Ibrahima ci max lu mel ni njoowaan wala laat feer guuta mbaay ko yëngal a yëngal ba mu sànn rek ñu sànni mu ànd ak mbax nga xam ni boo sànnee ji ma ngay tàbbi ca biir kàmb xoolal Ibrahima alayhi salaam bi mu dikkee moom wir na ko ni ci kàmb gi lañ koy sànni te taxut mu deltu meetar wala lu ko jege ci diineem ak pas-pasam mooy ngëm yàlla bis bu melee na mu war a mel ci biir xol maanaam waa ji fi nekk ni loo ko defete lu dul tàbbal ko sawara su borom see faalewu moo tax kenn ci magi salaf yi di wax ni laa yarjuwanna abdun illa rabba wala wala yaxaafanna illa damba benn jaam bu mu yaakaar kenn ku dul boroomam waaye bu mu tiit dara lu ay bàkkaaram ibrahima alayhi salaam biñ ko sànnee ca sawara sa am na ca ay fan gaa yi ñoom ña nga fële fàtte nañ ibrahima léegi waxut maanaam daal jàpp nañu ibrahima moom deey na bu yàgg léegi li ñuy xaar mooy sawara si fayal boppam ñu suul ngaari ndeke ibrahima moom mu nga ca biir kàmbu gay noos moom alayhi salaatu wasalaam ibrahima nga ca biir kàmbu gay noos di cokkat cokkati ca biir xale yay dox ak lekkam di ko fa fekk ak naanam di ko fa fekk jàmm jaag péex ma di ko fa fekk dem na ca biir sawara loolu loolu kiimtaanu suñu borom bu rëy la koy wane ne gis nga pas-pas pas-pas lu garaaw la lu garaaw lay def ci xolu nit ci jegeloo ko yàlla subhaanahu wa taala am na ci borom xam-xam ñuy wax ne suñu borom sax yabal na jibril mu ñëw fa jibril ni ko daa ñëw ko dimbali ko waaye xoolal Ibrahima ni mu baree pas-pas mu ne ko ndimbali ne bu dee ci yow Jibril la nar a bàyyi koo loolu ndimbal moom soxlawu ko Jibril amul amul lu muy ndimbal suñu borom lay bàyyi koo waaye bu dee ci sama borom la soxla woon nag ma jël waxuma la sax ndax jibril dana dimbale du dimbali waat waaye dama ne foofu ku fa toll moom ndimbal loo gis jël ndimbal loo gis lu mën a doon li gars yi naan kuy waaj a daanu caru garab boo seen jafandu ca waaye ibrahima defut noonu de car bu dëgër rek lay jafandu da lay wax xasbi allah wa niamal wakil niamal mawla wa niamal nasir doy loo naa yàlla te wéeru ci moom wéeraay bu dëgër gi allahu akbar moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni fa anjaahu llahu min annaar yàlla musal ko ci sawara lii nag dama ni képp koo xam ni gëm na yàlla te mel na mu war a mel war ngaa mën a am lu mel nii mbaa xam ngeen ne lii du Ibrahima rek ko am déedéet du Ibrahima rek ko am. am na benn waa ci jamonoy Omar ibn al-Khattab man maa fàtte tur wi jamonoy Aswad al-Anasi Aswad dafa defoon lu mel ni la waa ji defoon gaa yi defoon mooy taal sawara ah di seet ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi gëm yàlla di leen ca tàbbal. fàtte naa turu taabi'i bi waa ji daal di koy jàpp moom Aswad al-Anasi daal di koy tàbbal ci biir sawara si muy joggi ci biir sawara si tay reetaan gis nga bi loolu amee ñoom dañoo jommi jëmee ci yàlla subhanahu wa ta'ala bi loolu paasee ah waa ji daal di ñëw Madina bi mu ñëwee Madina Omar ibn al-Khattab dégg ni ñëw na Omar samp xel wi daw bi mu dawee ba dem daf koo kasafu kott ko ni ko yow yaay diw mu ni ko waaw yow la aswad al anasi tàbbaloon si sawara te lakkoo mu ni waaw Omar daal ni maa ngi sant yàlla mi ma wan yonent yàlla Ibrahima am xeetu Muhammad maa ngi sant yàlla mi ma wan yonent yàlla Ibrahima am xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na génn góor gu mag ak sëriñ daara woon bu doon nettali ci jamono yi fi naar yi nekk fii am na benn waay boo xam ni dañ ko tuumaaloon dañ ko dafa joteeg nit tuuma ji nit ci lool mu jaaxle amul benn mbir bu ko mën a défendre ah ñoom bokk na ci yi ñu doon def mooy taal sawara ne ku nekk na ci dugal loxo bu fekkee li ngay wax ñeme nga ne du dëgg dugal ci sa loxo waaye moom nee na dugal ci loxo mu wax caaya ji rek cëppeelu ci biir xal yi ne yàlla su fekkee liñ ma waxal dëgg la na ma sawar si la mu ne ba ni mu génnee safara la safara si la caaya ji lakkut bët mi lakkut yaramu taxut di wax loolu li ma ci istidlaala mooy nga xam ni kon maanaam yàlla subhanahu wa taala yii mi ngi koy defal jaax yi baax yi ba léegi hatta al an ba tey amaa yi nga xam dañ koy nettali nag naan ay diw daa ngan sa war a saak daa set xalwaag yooyu affaire njibar la yooyu taxuma yooyu taxul may wax déedéet yi ma tax a wax mooy yu mel ni nga xam ni day nekk ci jihaad bi mag waaye fekk am mbooloo mu toog ñu ngi ci seen jàmm bandi la di leen fukk ngay sexi xal moom loolu yëpp du yëfi nit ñu yëfi njibar la amul benn njariñ moo tax suñu borom mu ne inna fi daalika nekk na ci kaaw ci suñu borom jii la aayaatin ay kéemtaan yu waral nit ñi mën a dellu ci suñu borom waaye li qawmi yuminuun ñeel jaam ñi nga xam ne ñoom gëm nañ suñu borom yàlla suñu borom boole ñu ci kuréel boobu suñu borom mu ni wa qaala ibrahima mu ni leen innama ittaxadtum yii ngeen jàpp min dunillahi walis yàlla awtaanan ay xirem la yoo xam ni mawaddata baynikum cobeel la guy jokkale seeni diggante kese ngir ngeen di gën a bëgganteeg gën a bokk yàlla ju ngeen di jaamu te nekk xerem fil xayaati dunia fii la yem ci kër àddina summa bu ngeen dee summa ku fi jóge bañ suul la yawmal qiyaamati nga dajeeg suñu borom yawmal qiyaama yakfuru baadukum bi baadin lenn ci yéen danañ weddi seeni morom wa yal'an muy rëbb baadukum baadan lenn ci yéen di rëbb ña ca def loolu de mooy àllaaxir suñu borom naan kullama daxalat ummatun laanat uxtaha xatta ida daaraku fiha jamia ku njëkk a dugg rek da ngay rëbb ka la jiitu wala ka ca des tey ñaan suñu borom yal na yàlla gën a dolli mbugal mi ci diw ndax moo ñu sànkoon suñu borom ni al axillaa ñu jàppante ay xarit te yàlla taxul wala xëram moo leen boole ci kaw suuf wala bidaa wala caaxaan yawma idin bu ñu yegsee àllaaxira baaduhum lenn ci ñoom li baadin ca la jëles aduwun ay noon la ñuy doon illa almuttaqina wala ñu ragal suñu borom ay ayat yu bari suñu borom di wane ni maanaam mbooloo meeg mbooloo mi day tas askan wi day jaxasoo ànd bi day yàq lu dul gi tegewoon ci ragal yàlla suñu borom ni wa mawaakum seen dëkkuwaay annaaru mooy sawara wa maa lakum déddi leen ñeel min naasirina ci ku leen di dimbali ci sawara lii mooy discours yonent yàlla ibrahim wala boog bokk na ci discours yonent yàlla ibrahim sunu borom mu ni fa amana lahu mu daal di koy gëm gëm nag mu daal di koy gëmle gëm ko tamit lootun ki ñuy wax loot loot nag alayhi salaam li gën a wér ci waxi ahlu siyar mooy doom la woon ci yonent yàlla ibrahim maanaam doomi magam la woon ndax loot baayam mi ngi tuddoon haaraan te haaraan aazara mooy baayam te aazara mooy baayu ibrahim kon ibrahima ak haaraan baayu loot ñoo bokk ndey ak baay ibrahim yonent yàlla ibrahim ak haaraan mi jur luut ñoo bokk ndey ak baay kon luut doom la ci ibrahim maanaam doomi magam la wala doomi rakk luut suñu borom ni fa aamana lahu gëm na ko luutun luut wa qaala mu ni inni man kat muhaajirun damay gàddaay ila rabbi jëm sama borom wa qaala inni muhaajirun ji borom xam-xam yi jiyoon nañ ci ibrahima ko wax wala luut ñoom ñaari ñëpp nag kooku askanale day wér ndax ibrahima alayhi salaam nee na inni muhaajir te luut nee na inni muhaajir ñaareel mooy inni muhaajir luut la gën a jege kon siyaaq bi moom la war a wan a waxal inni muhaajir ci discours ibrahima lañ nekk ba léegi kon mën a kon daal ci gàttal borom xam-xam yi tafsir dañuy wax ni inni muhaajirun moom am nañu ne luut moo ko wax am nañu ne ibrahima moo ko wax ñoom ñaari ñëpp ku ne wax waaye nag siyaaq ji ah ñoom ñaar ñëpp la jege ndax boo ne fa amana lahu lutun wa qaala inni muhajir jege na lu torop boo ne wa qaala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al azizu al hakim mu mel ni lut la jege boo ne wa wahabna lahu wa wahabna lahu ci ibrahima lay dellu te it moo gën a jege inni muhajir kon daal damay wax ne aaya ji moom dëppoo na ci ñoom ñaar ñëpp wa amana lahu luutun luut daal di koy gëm wa qaala mu ni inni man kat muhaajirun ila rabbi damay gàddaay jëm ci sama borom wala ibrahima wax ko innahu moom sunu borom kat huwa al azizu al hakim al aziz mooy ki not ci nguuram te bari kattan waaye al hakim mooy ki xereñ su ngeen fàttale ko suutul anbiya waxoon naa leen ni ibrahima alayhi salaam luut da koo gëmoon léegi problème bi foofu Ibrahima bi muy dem ci buur bu saay saay ba ba ko ba mu waxee soxna xam ngeen saarata dafa rafetoon lool ba àgg ci lool sax na ko jéggi dayoo saarata dafa rafetoon ba rafet gi jéggi dayoo ñuy dox ñoom ñaar ba yegg ci dëkk boo xam ne buur ba daa saay saay lool bokk na ca la muy bañ ca caay caayam jigéen ji rafet day bañ a gis te xam ngeen moom kullul buur nag noonu lañ mel noonu ñoom buur yëpp a mel noonu moom loolu seen aada la seen baaxu maam bëgg alal ak bëgg jigéen ju taaru moom seen a seen aadama am la léegi buur bi saa bu gisee ku rafet rek teg ci loxo mu gis saarata Ibrahima bañ mu teg ci loxo mu ne ko bu la laajee kii lu ngeen bokk bul ko wax sama soxna la nanga naan sama mbokk la rek mu jeex ndax am na lu mu doon bañ ci wax gi muy wax sama soxna la ndax ca la nangu gi gën a jege mu ne ko li tax nga naan sama mbokk nga mooy benn sama soxna nga waaye kaw suuf yëpp ci ne yow rek yaa ma fi gëm kon yaa bi sama mbokk wax na ko dëgg benn léegi jamono jooju histoire ba leneen leneen la nettali woon naa jërëjëf li ma ci soxla laay wax léegi ci jamono jooju kon ndax loolu da kaa gëmul wala ahankay gëmoon na moo tax borom xam-xam yi bi ñu boolee wax yi ñu ne ahankay loolu gëmoon na waaye Ibrahima lam ca namoon mooy mbokk moo xam ne mi ngi mbokkoog borom këram ñoom ñaar kese lañ fa ci kaw suuf te wax na dëgg ko noonu la ñu boolee wax. ànd ak fekk na Luut gëmoon na ko alayhi salaam Luut ak Ibrahima bi ñu àndee suñu borom baaxe Ibrahima defal ko parce que doomu rakkam la woon wala magam suñu borom def ko mu nekk bu yonent comme nañ defalee woon Moussa mu Haaruna mu nekk bu yonent Ibrahima ànd ak Luut ba mu yàgg yëf yi jafe lool Ibrahima gàddaay dem Saam Luut gàddaay dem Sadduum te dëkk boobee nga xam ni fala mbonte yooya nga xam ne kenn jiitu leen ci kaw suuf amee woon te nekkil naa ko saari mu ji suñu soxla ak nam bi kadaalik bi loolu amee Luut alayhi salaam daal di dem di daawa ji foofa fekk jur gi bari na xar yi bari na mu yóbbaale ci Luut alayhi salaam daal di ñëw nag ci dëkk boobu ci war a daawa fekk fa ay nit yoo xam ni seen ak caay-caay moom daanaka kenn mënu koo nit suñu borom ni wa wahabna lahu may nañ yonent yàlla ibrahim isxaaqa yonent yàlla isxaaqa wa yaquba ak yaqub foofu nag lenn ci ñenn ñi jot a tarxiis jàpp ni isxaaqa ak yaqub yépp ay doom lañ ci ibrahima déedéet dëgg la ñi ngi koy toxal jëlee ko ci abdullah ibn abbas même bu wéree doom la ak sëtam te xam ngeen doom ak sëta yaa leen boole jur ndax isxaaqa la ibrahima jur waaye yaquba ku ko jur isxaaqa ko jur yaqub isxaaqa ko jur kon doom la ak sët maanaam sunu borom da ko wax wahabna lahu naafilatan naafila mooy am nga doom doom yey farata ji naafilatan mooy am nga sët soo demee ci suratul anbiya sunu borom da ko tuddee naafilatan muy naafila mooy da ko may doom muy ya isxaaq may ko naafila muy yaqub moo tax yonent yàlla bi alayhi salaatu wa salaam ban ko laajee kan mooy ku tedd ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dani ku tedd ki kat mooy yusuf alkarimu ibni alkarimi ibni alkarim ah ki nga xamante ni alkarima mu ni anna alkarima ibna alkarimi ibna alkarim yusuf ibni yaqub ibni ishaq ibni ibrahim ku tedd ki doomu ku tedd ki doomu ku tedd ka doomu ku tedd ka mooy yusuf doomi yaqub doomi isxaqa doomi ibrahim kookoy ku tedd gi nga xam moom ay maama moom daanaka ni mu teg toggalantoo nekk yeneen bariwul ku ko am tegam kenn am na ko sunu borom mu ni wa wahabna lahu may nañ ibrahima isxaqa doom ji ñoom isxaq wa yaquba ak sët bu ñuy wax yaqub mu ñëw nekk naafila fii nag am na benn nukta bu sew bu jar a bàyyi xel doog a jàll waxoon naa suutul muminun nga doomu aadama saa bu góorgóorloo ci la ko war yàlla da koy fay ci àddina ba pare da koy fay àllaaxira gis nga am na xeeti xéewal yoo xam ni da koy dund ci kaw suuf yàlla da koo tàmbalee fayee fii loolu day am na sunu borom moom ay mbiram lu yaatu la gis nga mën ngaa góorgóorlu sunu borom fay la ci àddina nga teg sa bët nit ñi teg ci seen bët nga dem ba àllaaxira mu fayaat la mooy lan fa lamma atazalahum ma yaabuduna min dunillah bi ibrahima pas-pasam mu jaral ko gedd ay mbokkam jaral ko bàyyi ay famem jaral ko tumuraank jaral ko génn kër baayam jaral ko daj ci ay jafe-jafe loo xam vraiment benn bu ci nekk sacrifice la sunu borom may ko ci fay ak àddina lu remplacé loola lépp may na ko soxna su taaru muy saarata may na ko doom ju baax muy isxaaq ak ismail may na ko sët naafilatan ba pare tabax loo ko kaaba ga ba pare defal ko ak njaboot wa jaalna fi durriyatihi nubuwata wal nga de wa aataynaahu ajrahu fi dunya sunu borom ni wa jaalna def nañ fi durriyatihi ci ak njabootam an nubuwata yonent ginnaaw bi Ibrahima faatoo mboolem yonent yi ñëw ci kaw suuf ci njabootu Ibrahima lañ ko loolu bàyyi ci xel mboolem bi yonent yi ñëw ginnaaw Ibrahim ci njabootu Ibrahima lañ bokk ba ci Isa sax laa wax naa ba ci Isa ci njaboot gi la bokk te Isa mi ngi askano ji te kon ñoom ci seen jëmmi bopp yonent yëpp ñi ngi bàyyi ko ci njabootu Ibrahima demal ci surtul xadiis te jeexintal ba ah sunu borom ma ngi ko fay nettali wa jaalna fi durriyatihi nubuwata wal kitaba minhum muhtad def nañ ci ak njabootam an nubuwa yonent gi ci ñoom lañ koy wàcce waaye téere yi tamit ci ñoom lañ koy wàcce yonent yi ci ñoom lay wàcc waaye téere yi tamit nag ci ñoom lay wàcc moo tax sunu borom subhaanahu wa taala ah tagg na Ibrahima tagg gu màgg ci li nga xamante ni mooy téereem bu tedd parce que Ibrahima alayhi salaam da di yonent yàlla boo xam ne dafa dajale ay mbir yu bari alxaafis ibnu kathir daf koo waxal wax ju neex wax joo xam ne baat ku rëy la moom Ibrahim alayhi salaam bi muy tafsir moom ibnu kathir ah ba yegg ci aaya yii dafa wax ni ibrahima alayhi salaam yàlla def nañu sànni ko ca sawarata mu ni tumma qadafuuhu fiiha fa jaalaha allahu alayhi bardan wa salaam sunu baram def ko sawara si nekk sedd ak jàmm ci moom mu ni wa xaraja minha saaliman baadama makasa fiiha ayyaaman mu sax ca biir sawarata ginnaaw bu fa amee ay jour yu bari te génn nag mu ni wali hada wa amsali lii ak yu mel ni moom jaalahu llahu linnaasi imaaman moo tax yàlla def ibrahima mu nekk imaam ñeel xeet wi yépp àddina bi lu tax mu ni fa innahu badala nafsahu lirrahman wa jasadahu linniiraan wa saxaa bi waladihi lilqurbaan wa jacala maalahu liddayfaan wa lihaada ijtamaa ala mahabbatihi jamiicu ahli ladyaan allahu akbar loolu loolu taggu taggu neex la woo xam ni xaw tuuti kon rek ma ne xanaa dafa rëcc alxaafid ibnu kathir kathir ibni kathir rahimahu llahu rahmatan waasiatan wa an jamii alulama mu ne yàlla dafa def ibrahima mu nekk imaam ñeel xeet wi yëpp li ko waral mooy ibrahima dafa def lu kenn diful ndax moom basala nafsahu lirrahman dafa sacrifié bakkanam jox ko yàlla nañ ko lakk ci sawarati mu ni ndokk ndax yàlla jaral na ma ko mu ni wa jasadahu linniiraan daa jël sacrifié yaram yi niñ ko lakk ci sawarati ndax sawara du mooy lakk yàllaay lakk waaye lu ma ci góobe jël mu ni wa saqaa bi waladihi lil qurbaan kenn ku nekk bëgg nga sa alal lool ba maye ko yomb na la waaye bëgg sa doom ba di ko maye nag jafe na de rawatina doom ju góor ji nag rawatina nag nga yeex koo am rawatina nag dem ba am quatre vingt et quelque quatre vingt huit ans doog a am doom mu dikk di benn ci baayam ak yaayam mu ne Ibrahima daal di koy jël fas yéene koo rendi ngir jegeeloo ko yàlla comme ni ngay rendee sam tabaski pour jegee ko yàlla mu ne wa jaala maalahu lil dayfaan lim alal am ci alal mu di ko sacrifier ngir malaaka yam jàppoon ne ay nit lañ dañuy lekk mu seet la gën a duuf ci aw géttam mu rey ko ngir teral gan ñi ndeke gan ñi duñu lekk ay malaaka lañ nee na wali haada lii moo tax ijtamaa dafa dajaloo ala mahabbatihi ci bëgg ko jamiu ahlil adyaan mboolem diine yépp ci dëggoo mbaa am nga ni dina yeneen diine niñ bañee yéen yàlla Muhammad bañee ko Ibrahima ba de Abraham Abraham ñun dañ koy tuddee sax léegi école ah dana man xam naa benn école bu ñuy tudd xaw ma seen seen tam seen tabram xaw ma defe naa noonu la seen tabram defe naa noonu la école bi. dañ koy tuddee sax léegi école ñun dañoo dañoo màggal Ibrahima teg ko fu kawe loolu nag yàlla moo ko defal mooy ijtama ala mahabbatihi jamiu ahli al-adyan mboolem diine yëpp diine yu juif yi bëgg nañ Ibrahima chrétiens yi kadaalika ñeneen ñi kadaalika ñeneen ñi kadaalika jullit ñi moom ñoom ñoo gën a bëgg Ibrahima ndax ñoom dañoo gëm ni sax Ibrahima ñoo ko moom bu dee Aysa sax kadaalika ndax Aysa sax nag dëgg dëgg nag ñun ñoo ko gën a bëgg keneen ko dut moom moo tax benn borom xam-xam dafa am benn muxaadara bu mu am solo bu mu def Muhammad Hassan tuddee ko nahnu awla bi Aysa minhu mu ni titre mawdoo bi mooy ñi askanoo Aysa ñun ñoo leen ci gën a yey sax sax te wax na dëgg ñoo leen ci gën a yey waaye ñoo leen ko gën a bëgg nag ndax loolu lay liwee kon suñu borom ne wa jaal naa def nañ fii durriyati yi ci njabootam gi an nubuwata ak yeneen loolu ci fay ak àddina gi la bokk wal kitaaba wàcce ci ay yeneen ci ay njabootam téere yi jot a wàcc ci ginnaawam ah wa aataynaahu jox nañ ko ajrahu ab yoolam fi dunya ci àddina gis nga li ma la waxee ne noonu maanaam yenn góorgóorlu yi soo ko defee borom bi subhanahu wa taala daf lay fay fii ci àddina wallahi gis nga mbokk yi yenn sacrifice maanaam nit da koy def ba pare mu wér la ni lii ngay gis ñii fayu yàlla subhanahu wa taala loolu day am du jaar sax suñu borom di wàcce aaya naa lii maa la ko fayee yow ci sa jëmmi bopp bu dee analyser nga da ngay xam ni lii fay ak suñu borom la suñu borom moom ay mbiram dafa yaatu maanaam nit ki def sacrifice diineem jaral ko lu ne pas-pasam jaral ko lu ne mu yàq ay bineem ndax diineem ah am ay possibilité war a mën a tedd te loolu dafa araam mu bañ caa tedd ngir diineem man taraka shay'an lillahi awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla dina la wutalal lu ko gën loolu moom defe naa xam na yàgg nañ ci joxe ay misaal suñu borom mu ne aataynaahu jox nañ ko ajrahu ab yoolam fi dunya ci kër ak àddina gi wa innahu moom day fil axirati ca alaxirati de ay la min asalihin dina bokk ci jaamu yàlla yu yiw yu baax ya te loolu defe naa moom la nit ki yuut waaye moom lay bëgg yàlla suñu borom defal na ko kon sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa luutan yent yàlla luut id jamono ba nga xam ne yàgg na lool ci jamono jooju maa kunta tadri man kitab wala iman beneen bi mu ne ko maa kunta taalamuha anta wala qawmu ah bi beneen bi mu ni ko wa kunta ladayhim iz yulquuna aqlaamahum e beneen bi mu ni ko nahnu naqussu alayka ahsana alqasas ah beneen bi mu ni ko wa rusulan qad qasasnaahum alayka wa rusulan naqsussuhum alayk ayat yu bari sunu borom di ko wan ni fekkee woo ko woon waaye man yàlla maa lay nekk li xabaar yi paas sunu borom mu ni wa luutan yonti yàlla luut id jamono ba nga xam ni qaala dafa waxoon li qawmihi ñeel aw nitam innakum te beneen aaya mu ni a innakum fii mu ne la tatuuna alfaaxisha dafay mun la tatuuna alrijaala a innakum wala innakum boobu la tatuuna alfaaxishata yéen a ngi def mbonte ñaawte goo xam ni maa sabaqakum biha kenn jiituwu leen ci min alaalamina ci mindee sunu borom mu ni a innakum ndax yéen la tatuuna alrijaala da ngeen di sëyag ay góor te di góor wa taqta'uuna sabila te ngeen di dog ay yoon di agressé nit ñi wa ta'tuuna ngeen di dikkee fii naadiikum ci seen dikk penc mi al munkara jëf yu ñaaw lii nettali woon naan su soara ak taarifa jiitu Luut alayhi salaam men na moom la yàlla dajaleeg askan woo xam ni seen ak caay-caay amul kun ko nuróole firawna saay saayoon lool haaman noonu qaarun noonu keneen noonu waaye seeni caay caay am nañu nuroog xorom waaye nit yunti yàlla lool moom dañoo saay saayoon caay caay goo xam nurulewuñ ko kenn moo tax mu ni a innakum la tatuuna alfaxishata ma sabaqakum bika min ahad min alaalamin ndax da ngeen def caay caay goo xam ni kenn ci kaw suuf musu koo sos bokk na ci seen caay caay gi mooy li ñuy def muy góor jigéen mooy jigéen moom góor gi du ko soxla góor soxlawut góor dafa bëgg di séy ak moroomu góoram nga xam ni ni mu tibbag ni mu salté ak ni mu rusoo wax waxu sax waxuma laa gi ko def al imam zahabi mi ngi nettali ci seeru ca fële téeréem ba di al kabair ah al xaafid al haytami tamit di ko nettali ci azawajir ni saa bu moroom góor waree morom góoram ngir caay-caay arasu yàlla ji subhanahu wa taala day yëngatu di baj-baj malaaka yi ñooy jàng qul huwa allahu ahad ba mu dal gis nga bàkkaar bi bàkkaar la boo xam ni ci bàkkaar yi gën a bon gën a yées nga xam ni borom bi na muy mbugalee ña ko def du ko mbugalee kenn moo tax mbugal mi leen yàlla mbugal mbugalu ko kenn gis nga su ko defee ñoom góor jigéen gii tey ci ñoom la tàmbalee woo bokk na ci seen ak caay-caay mooy góor jigéen bu ko defee saa bu ñu gisee gan rek bu bees rek mu di góor rek sàqalikoo nañ seen sago loolu lañ soxla gis ngeen nettali woon naa leen ba ñu gisee gani Ibrahima ya muy Jibril ak Mikaayil Jibril ak Mikaayil jaar kër Ibrahima Ibrahima génne nag wa yëkk wa togg ko saab ko saab ko gaaw ñëw teg ko ci seen kanam gars yi di xool ñam wi di xool Ibrahima Ibrahima jommi ñu ne ko jërul jaaxle ñun inna rusulu rabbi ñun ay yonent yi yàlla lañ dañoo ñëw pour bégal si la ni sa soxna sii dina am doom muy saarata soxna saa ngi taxaw màgget lool am juróom-ñett fukki at wala lu ko jege ñu ne ko dina am doom ci waxtu woowa nga xam ne wax dëgg yàlla xam-xam saxal na ni jigéen dootu fa amati doom rawatina suñ jamono jii nga xam ne moom boo xasee am ñeent wala bu koy waajamat sax moom léegi yow nga lax say bagage nga gaare ñu ni ko dañoo yabal inna ursilna ila qawmin mujrimin li nursila alayhim xijaratan min tin musawamatan inda rabbika lilmusrifin fa akhrajna man kana fiha min almuminin fama wajadna fiha gayra baytin min almuslimin wa tarakna fiha ayatan liladina yaxafuna alazab alalim dañoo yabal ci ay nit yu saay saay ngir ñu sànni ci seen kaw ay doj yu bàyyi ko ca sijjiin ca sawarata xeer wu nekk bind nañ ca bopp kan la war a toj ñu génne ña nga xam ne ñooy ñu gëmoon yàlla ca dëkk ba ndeysaan Ibrahima ku bari yërmande la dañ leen inna fiha luutan yéen xaa da ngeen a fàtte ne luut ma nga ca dëkk ba malaaka yi ni ko nahnu aalam bi man fiha ñun ñoo gën a xam ku fa nekk ku fa nekkul lanu najjannahu wa ahla dinañ musal luut ak njabootam ba mu des soxnaam ndax innaha innahu musibuha ma asaabahu soxna sa kat la leen di dal lay dal xeet wa ci mbonte moo leen di dal ndax moom da leen xiirtal nit ña ca caay-caay dëgg la def bokk ci bokk ci dafa jàppalewul lóot cib daawaam loolu mooy fa xaanataahuma fa xaanataahuma tekkul soxna si doon dem di saay saay yi ndax yàlla dafa ame isma yu mu defal ay yonent mooy soxna si yonent bu saay saay waaye mën na kaa bañ a gëm sañ naa toog ni ko gëwuma la loolu moom mën naa nekk waaye nag saay saay moom déedéet yàlla loolu dafa ko defal isma ci yonent loolu bi mu amee malaaka yi daal di ñëw kër lóot bi ñu ñëwee kër lóot daal di fekk ndeysaan gars yi daw si leen daw si leen xam nga malaaka moom soppali ko ni day rafet loolu ba rafet gi jéggi dayo gars yi commencé wër dëkk bi lu gën ci yàlla lóot am na ñaari gan yoo xam ni ban dalee gis góor ba tey mosuñoo gis góor yànjee nii ndekk ay malaaka la ñuy wax fekk jubli leen gi mer bay fët fëti waaye mu ngi ne fàtt rek waxu dara rek ah gaa yi ñëw ci bunt bi commencé di raj raj loo di xëcc kii nan ma appoo kii allah xoolal rek kii di xëcc loxol mi kaay nan ma appoo kii kii di xëcc loxol jibril nan ma appoo kii jibril fekk mi ngi mer may sofu loolu amee yëf yi luut ndeysaan te xoolal malaa gaa yi taw mel ni ñoom ñoom ay nit lañ kii nan ma appoo kii di xëcc loxol yi yëpp jëm fële malaaka yi di tekk rek luut am lu ko metti lool te lay wax ne law anna lii bikum quwa aw aawi ila ruknin sadid alaysa minkum rajulun rasid rasid haulaay banaati hunna atharu lakum wax yi lu mu yaakaar ne bu ko waxee gars yi deltu gannaaw rek gars yi ni ko hey laqad alimta ma lana fi banatika min xaqi wa innaka la taalamu ma nuriid gis nga ñun ay jigéen lañ amalul affaire xam nga liñ soxla mooy kan yii lañ bëgg gisante ah foofu nag bi mu amee nag loolu tàmbali di jooy ndax am na wu fekk jibril moom ma nga mer bay jibril ni mu def amut lu dul daal rocce laaf wi rek la raj laaf wi la rocce rek ni ko tay ci seen xar kanam yi seen kanam yi maase mel ni lex maanaam bët yee lépp suul affaire mel ni lex daa yi taxawaat fële gars yi nag commencé xamatul fu ñuy jaar ni commencé làmbat di dagg ay saaga yoo xam ne kenn mësul dégg saaga yi di saaga yonte yàlla lóob nan ko sa jabar gi dellu seeti na yaa ngi gis nga ni nga def sunu karak waaye bu ñu yeewoo suba rek di jaar foo xam ni kenn mënu ko loolu gën a merloo jibril jibril jël laaf yoo xam ngeen jibril yonent yàlla bi nee na gis naa ko fil ufuqil aala fi sittumi ati janaax yonent yàlla bi gis na jibril daanu xam biñ ko laajee misaal dañu dafa tàllal laaf yi mu fees àddina bi fees fi yépp ufuq bi nee na mi ngi am juróom benni téeméeri laaf moom jibril wa ma adraka ma laaf malaaka jibril jël laaf yi roof ko ba mu yegg ca suuf sax waxuma tibb ab tibb yu ndam ne waxuma tibb quatre plan yi de roof ba fa suuf sa yam laa te ndox ma jibril tibb la leen wër lépp ndax yéen da ngeen a bon ba seen i jeexintal waru fee des jibril yëkkati ba ñuy seen sami ganaar yi waa asamaan di ko dégg jibril daal di juutal maanaam waxuma la nañ leen rey waxuma nañ leen faagal waaye da ngeen a mbon mbon goo xam ne yéen bu ñu leen dee suuli armeel dañuy gas sax mu gën a xóotu teen ñu suul leen loolu lay teg moo tax jibril gas ngaari moo xam ne moo gën a xóotu teen moo gën a xóot ab ab comme nuñ koy waxatee forage tibb daal leen di suul waaw yéen seeni armeel moom na sori armeel nit ñi parce que baaxul am na nit ñi wax wallahu alam loolu mu dajeegu ma ak moom ci ak wéram wala ñàkk wér ñuy wax naan góor jigéen bu ko deewaalee sax même buñ ko suulee malaaka yi dañ koy sulli dem suuli ko fële ca saddu ndax rek bañ mu jege nii xam naa ne day fa mu dëkk ba muy dund baaxut fuñ ko suul ba muy dee baaxut loolu moom wér na moo tax suñu waram mu ni bi luut ne yéen a ngi indi mbonte goo xam ne maa sabaqakum biha min ahadin min alaalamin kenn jiitu leen ci mbindeef a innakum ndax yéen la tatuuna rijaala da ngeen di dikkee góor ñi di seeg ñoom wa taqta'uuna sabila di agrété ay nit ay ponkal lañ woon ñoo xam ni sawaay koo ci xool mën naa mesurer ay six mètres xam nga loolu day am danaa ci at yi passé la yéen a ngi dégg Saudi am na benn àll boo xam ni ay kéemtaan ñoo fa nekk danaa gars yi defal nañ ko àll boo xam ne ay kéemtaani yàlla moo fa nekk ba dañuy tere sax ku fa dem ah gars yi am na benn jour ñu am fa soxla di gas ba sulli fa benn koor boo xam ne mi ngi mesurer six mètres gars yi génne ko léegi def ay analyse am na ñu naan ci nit aat jala bokkoon ñi naan ci nit naan leen analyse yi ñu def ci xam-xam waaye nit koo xam ne mi ngi mesurer six mètres loolu moo lay wax ni kon ñu njëkk ñu guddoon nañ torop te yonent yàlla waxoon na ko nee na aadama mi ngi mesurer juróom benn fukki xasab mooy koo xam day taxaw mat ñeenti étage Ibrahima day taxaw mesure ñeenti étage nit ñi di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku ba tey jii di gën a wàññeeku ba keroog Allah suñu borom mu ni wa taqta'una sabila ngeen di agressé nit ñi ndax dañoo bari woon doole lool saa yi wa ta'tuuna fi naadikumul munkar mooy ngeen di indi ci seen pénc yi ak caay-caay xam nga luy caay-caay borom xam-xam yi nee nañ da ngay gis koo xam day sangu te këram ba pare war a sol yére déedéet mu ngàbb tubayam ak bubbam dem ba ca digg pénc ma day jaay kër yi foofu lay summeeku foofa lay solo maanaam daal nit ñi kaay leen gis sama awra yi nga gis waa joo xam bu bëggee dem wane bu bëggee dem àll day bàyyi ba ko mboot day wër di wër di wër ba gis ci mbooloo mi gën a xumbee rek mu jonkon ko léegi ñoom lan lañ jublu ci loolu maanaam man naa gën a saay saay lañ doon ko maa gën a saay saay maa gën a bon li kenn ñemewul maa daal ci gàttal am na yoo xam wallaay rus naa toog sax ci jàkkee suñu borom bi di ko nit ci ay xeeti jëf yoo xam ne ni mu bonee woon Aïcha ngi koy nit ba dama naan yii moom man ëpp na sax a nit ci biir jàkk yoo xam ne dañ ko doon def ci seen biir benn ci noonu suñu borom mu ni fama kaana nekkul jawaaba qawmihi tontu aw nitam wa illa an qaalu lu dul dañ ko wax ni ko yee yaay luut mu ni waaw yàllaa la yónni mu ne ko ñu ne ko waaw mu ni ñu ne ko itina bi adabillah andil ñu mbugalum yàlla mi loolu lañ bëgg li ngay wax dégg duñ ko léegi itina bi adabillahi andil mbugalum yàlla mi in kunta min asadiqina bu dee wax nga dëgg nga yàlla lu bëri yërmande la subhanahu wa taala xoolal rek xeeti ñàkk teggin geeg ñàkk yar geeg bon gi ak caay caay gi lépp rek suñu borom taxul mu def lu mu naru ko moom day bàyyi ba def def yi jot rek qaala Luut mu ni rabbi yow suma borom unsur nii yàlla nag ma musal ala al qawmi al mufsidiina ci gaa yi bon yi yàqkat yi suñu borom daal di nangu ñaanam mooy musal gi mu ko musal suñu borom mu ni walamma jaat ba mu dikkalee Ibrahima Ibrahima rusulana wala ma jaat rusulna ibrahim wala boo nga ne wala ma jaat ba mu dikkalee ba mu dikkalee ibrahima ibrahima ba mu dikkalee ibrahima kan moo ko dikkal nga ni rusulana suñu yonent rusulna wala ma jaat ba mu dikkalee rusulna suñu yonent ibrahima ibrahim bil bushra ci mbégte ma mbégte ma mooy sa soxna dina am doom ah mooy wamraatu qaimatun fa daxikat fa basharnaha bi isxaqa wa min waraai isxaqa yaqub qaalat yaa waylata aalidu ana ajuz ah man day toskare ñeel na ma naka lay amee doom te fekk màgget naa ñu ne ko ah loolu kat kéemtaanu suñu borom la rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayt ah lii kat innahu amru rabbik ah lii kat suñu borom moom yafalu ma yasha suñu borom kat moom lu ko soob lay def borom bi daal dogal soxna si daal bi wan na lor am doom ji ñuy tuddee isxaaq di doomi ibrahim ci jamono ju yàgg suñu borom mu ni qaalu ñu ni ibrahima inna ñun kat muhliku dañuy alagi tey ahli haadihi alqaryati waa dëkk bële di saddum inna ahlaha ña fa dëkk kat kaanu zalimina ay saay saay lañ ay tooñkat qaalat ibrahima ni inna fiha luutan xanaa da ngeen a xamul ni yéen ci yàlla luut ma nga ba ngeen da ngeen alag waa dëkk ba qaalu ñu ni ko nahnu aalamu bi man fiha ñun ñoo gën a xam ñoo la gën a xam ku fa nekk ku fa néw lanu najjiyannahu dinañ ko musal wa ahlahu ak njabootam illa mraatahu ba mu des soxnaam doon ci njaboot gi la bokk kaanat dafa bokk moom ci soxna si min al gaabirina ci ña nga xamante ni mbugal ma day tàbb ci seen kaw ñi nga xam dañuy des gannaaw bokk ci mbugal ma suñu borom na ngeen génn waxtu fajar wamdu xaytu tu'maruun te it wala yaltafit minkum ahad inna maw'idakum as-subh fa tamit nag alaysa as-subh bi qarib dem leen rek amul gees waxoon naa leen ñàkk geestu gi jeexintal yi maanaam ndax nit fa mu dëkk dafa def jeexintal ci moom lool beneen bi ci des mooy mbugal ma nam mettee moom bu ko sa bët tax gis ah wamdu xaytu tu'maruun dem leen fan leen digal kañ la mbugal mi ñëw mu ne inna mawidahum subh fajar alaysa subh bi xarib fajar soree léegi mu yegg suñu borom mu ni walamma an jaat ba mu dikkee wala ba mu dikkalee rusuluna sunu yonent luutan yonent yàlla luut si abihim bon na ci ñoom lool bon na lool bi leen yéen yàlla lu dikkalee ah wa daaqa bihim zar'a lu daal di am lu ko metti torop ndax kat su fekkente ni ñi ay gan lañ gan yoo xam ne luut da leen war a mën a teral te saay saay su bon fii daal di fii nekk ah tey de am na tiis lool qaalu malaaka yi ni ko laa tax bul tiit bul jaaxle wala taxsan bul amu tiis tey de inna ñun munajjuka daañ la musal ci kàttanu sunu borom wa ahlaka musal sag njaboot illa imraataka mam def sa soxna kaanat dafa bokk min alxaabirina ci ñi nga xam dañuy bokk ci mbugal sa soxna daal moom dana bokk ci ñi nga xam ñoom la ñuy mbugal sunu borom mu ni malaaka yi ni ko inna ñun kat munziluuna dañuy wàcce ala ahli hadihi alqaryati ci waa dëkk bi rijzan am mbugal min alsamaai bàyyi ko ci asamaan bima kaanu yafsuquuna ci sababu lañ nekkoon di saay saay dinañ wàcc mbugal mu met ci waa dëkk bi ci sababu lañ nekkoon di saay saay malaaka yi daal di jaar ci Ibrahima ndeysaan daal di koy jóge dem ci dem ci yàlla luut bu ñu yegsee jaar ak moom fii ma la wax nii ba Jibril daal di tibb li nga xam mooy suuf si gis nga suñu borom benn Jibril tibb na suuf si ñu yëkkati ko ba ca kaw te balaa loolu borom bi subhanahu wa taala di jël ñu jël ay xeer yoo xam ne mi ngi bàyyi koo ca sawarat xijaaratan min sijjiil musawamatan mooy xeer wi danañ bàyyi diw la war a dal xeer wi yaay diw la war a dal xeer wi diw la war a dal xeer xeer wu nekk rek bind nañ ci bopp kam itam te nag kéemtaan suñu borom bi mooy xeer wu nekk rek toj na bopp kam war a dal yemul ca loola ñu daal di tibb yëkkati ba ca asamaan sa dëpp muy ñaar yemul ca loola yàlla taw ca ñoom ab mbugal taw ab mbugal defe naa moom ngeen di wax mer moo muy géej gu dee googu albaxrul mayit a nga xam ni amut njariñ dara mënu faa dund suñu borom tuur ko ca seen kaw ndax fan dëkkoon sa fa kenn dëkk ci o mu jeex moo tax suñu borom mu ni sababu lañ doon saay-saayee moo tax yàlla wàcc suñu mbugal bi te xoolal tey ñii seen jëf yi ñu doon def ba yàlla wàcc mbugal moom bal sax nag loolu daa tuuti sax li may wax mooy amul benn xeetu bàkkaar boo xam ne xeet yu njëkk yi daanañ ko def ba yàlla alag leen loolu sunu xeet baa ngi koy def tey ko mën a xam ngeen loolu wér na wala déet mboolem bàkkaar boo xam ni borom bi alagee na ko aw xeet ab tatfiif fil mikyaal ta'tuuna fi naadikum al munkar ta'tuuna zukraana min al aalamin mboolem bàkkaar yi nga xam yi gaa yi daan def jaamu xërëm gaag yett ay mbir yaag rey ay lu ne lu ne tey xeet waa ngi koy def ci ay bàkkaar ci ay mbon maanaam daal fi mu ne nii yàlla rek moo mën a yërëm subhanahu wa taala li buggalam moom bis bu nekk daanaka mi ngi taxaw suñu kaw cati kaawee bopp yàlla yàlla subhanahu wa taala jàmmal moo tax suñu borom mu ni wala qad tarakna waay bàyyi woon nañ wala bàyyi nañ minha ca dëkk ba fan dëkkoon aayatan ab kaawteefu yàlla kaawteefu yàlla mooy yëkkati leen ba ca asamaan sa dóor ci suuf ñu def bàmmi ñu xóot a xóot joor leen ay xeer yi bàyyi ko ca sawara ku ne mu toj sa bopp yemul ca loola ñu taw tawab mbugal ci seen kaw lu lépp ay kéemtaanu yàlla la bayyinatan yu leer naññi li qawmin yaaqiluuna ñeel nit ñi nga xam ne ñoom xellu nañ waaye tamit dinañ dellu ci yàlla subhanahu wa taala lii nag mbokk yi gis nga aayaat yii benn dañ koy nettali yonent bi sallallahu alayhi wasallam te bu ñu nee yonent bi ak xeetam ndax yonent bàyyi na ko ñoo ci def ñaareel mooy aayaatu tasliya la li nabii sallallahu alayhi wasallam dañuy dëbal ak dalal xelu yonent sallallahu alayhi wasallam waaye ñetteel bi dañuy xamloo suñu bopp ndax kat histoire yi nettaliwuñu ko rek pour nga informé wu pour nga am culture ci déedéet dañ koo nettali pour nga xool ñii ñoo la fi jiitu woon gënoon la gudd fan ah ëppoon la doole ëppoon la ay moyen yàlla alagee leen lii ngir sababu bàkkaar sàngam kon xamal ni bàkkaar bii kat day indi mbugal moomu ndax suñu borom ba mu leen alagee ba noppi lam ci teg dañu wama hiya min alzalimina bi baid na ngeen xam ni mbugal mu mel nii kat fariwut tooñkat yi kon yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu musal xam naa dañuy taxaw di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiqi àddina bi àllaaxira yàlla na yàlla nangu ñu baax ak saalihaat yi ak saalihaat al amal nangu ñu siyaam yi ak qiyaam yi wa sallallahu wa sallam ala muhammad